الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit yi ginnaaw bi nu sante yàlla jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di eh, di leen ziyaara eh, di leen baalu àq tey sàkku ci ñëpp it ñu baal ñu àq di wax ne rek eh, ñu ngi dajewaat ak yéen ci suma durusu Ramadan yi nga xam ni moom mooy am fii ci Maghreb ñu di ko defee fii ci Rabat ànd ci ak kan Cheikh Sidy Lamine Camara di doom ci xam di Camara Eh, juddoo Njaasaan it yaroo fa màggee fa it jànge fa tay mu wara and ak ñun def ak ñun waxtaan ci tempo am solo waye tempo bari te lool waye tempo nit ñi wara a xel moy li nga xam moy amul bil ma'ruf wa nahyi anil munkar eh, mu nekk lo xamni it ak la go xamni nit ñi war nañu ci xel war nañu ko seetantalaat jangat ko ngir ni kat bari na ci jamono ji ni muy doxé te it mu war ci ñoom ñu war di digle lu baax tey tere lu bon moo tax ci waxi borom bi subhaanahu wa taala mu wax ne kuntum xayru ummatin uxrijat linnaas taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minu billah borom bi wax ni génne nañ leen ci xeet bi nga xam ni ngeen gën nit ñëpp waaye nekk ñoo xam ne da ngeen di digle lu baax tey tere lu bon waaye nekk ñoo xam ne ñu gëm yàlla bi Cheikh Sidy Lamine Camara war a ñëw ak ñun ci loolu war ñu ci indil ay leeral bari na ay buntu yo xamni génn na ko ci ak ay point yo xamni ni nañu ko leeral ñu diko daral diko di ñaanal yàlla yàlla fekk ci làmmiñam ubbi dënnam lim ñi wax yàlla tabal ko suñu dënn ba ñu ko dégg sax si lamin tafaddal أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كيف الكيف وتنزه عن الكيفية وأين العين وتعذد عن العين ووجد في كل شيء وتحدث عن زرفين وقدر عند كل شيء وتعالى عن الأندنية فهو أول كل شيء وليس له أحد والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبكي جلدي إنا وبين سنتيا وأي جلدي ينجي صلى الله عليه وسلم إني كان لكم نكتي بني سيطان فمن نكرك من لزيار بخ نيو كيل في باخ يبايت dëkk bu sell ba di Ndiassane ak mboolem kilifa yi nekk ci réew Sénégal yëpp ak mboolem jullit yëpp ñu leen ziar di leen nuyu indi leen nag day thème boo xam ni bu am solo la macha allah jëm ci lan digle lu baax waaye tere safar mbokk yi yéen ñi may diglu xam ngeen ni suñu borom subhanahu wa taala moom moo njëkk a digal daal ni nañuy digle lu baax waaye di tere safar ata amuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun mbokk yi kon ñi nga xam ne ñoo ay borom xam-xam di dëggal nit ah, loolu suñu borom subhanahu wa am na lu ñu wax ci aaya bi mooy di déglu lu baax waaye fàtte sa bopp waaw kon loolu du eh, war kàlla day dem dugg si ñi nga xam ne borom xam-xam mooy ñii tere war ñoo xam bu baax a baax lan la ñuy tere ndax mbokk yi bu ngeen xoolee tey. walu té day sukkandiku ci li nga xamanteni moy ñetti point bu ñëkk bi moy nit limuy muy téré faaw mu nekk lo xamni ñu ni inkaruhum bil yad wa hum al imma al imma wa salati euh li nga xamni moy téré bu sédel go ci ñetti point ba paré bi ci jitu moy ñi nga xamni ni ñom ñoy jitu julit njit ñi moy njit yépp buñ ko waxe njiri nak assemblée dugg nañu ñi nga xamante ni ñoo nekk tey ji ci fépp foo xamante ni ay kilifa fa rek di àtte kilifa diine dugg ni ñëpp dugg nañ ñoom ñoo fi teewal diine ji ak kilifa yi nga xam ne ñoo kilifay yi réew mi ndax bu fekkente ni nii tey ji li ñuy tere dafa jëm ci wàllu lu ñuy signé lu mel ni lu dal ci ensemble loolu mel noonu bu ñu seetaane ba ñu signé bu fekkente ni nii loolu dëppawul ak diine su boobaa loraange bu ñëwee ci ñëpp lay dal waaye bi ci des mooy bi tere bu ñaareel bi boobu ci inkaaruhum bi lisaan dunal yaddi wa hum al ulama ñoom ñooy borom xam-xam yi mbokk yi ndax borom xam-xam bi mënul dem fële ci assemblée borom xam bu diine moo tax may kon macha ki nga xamante ne ni moom mooy borom xam bi moom lim man mooy def ay li nga xamante ne moom mooy ay audio wala mu def ay waxtaan dugal ko ci youtube bi comme ni ko durus ramadan yi di ko defee ngir gindi nit loolu la ñu man ci bu ñu gisee loo xamante ne ni dëppoo ak diine ñu koy tere waaye bu ñetti le point bi moy lan inkaaruhum bil qalbi waxum al am bom nak am la ñepp la ñepp la war ndax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon la ko dal daal képp ku gis lo xamanteni ni lo xamanteni lu lo neexul la lu baxul la mooy képp ku gis lu bon nang wax nang ko tedd ci ñet bu njëkk bi mooy sa loxo loxo bi wax naa sànq dal ni moy ñam moy ñu nekk ci ensemble yek kilifa yi moy euh, president yek serigne seeg lay dugg si ñoom bu ñaareel bu sànq mo wax dal ni moy ñi nga xamanteni ni ñom lay borom xam-xam moy mooy lan mooy lisaan ndax yow nee ku ko mudd dindi sa loxo du ñaaw na nga ko dindi ci salam kon borom xam-xam kon ñom bu ñu gisee lu ñaaw war nga taxaw bax bax wax ci bax ñettel bu bi bobu ñepp la war moy lan bu ke mu ñu ko dindi suñu loxo mu ñu ko dindi suñu lamay nañ ko lan nañ ko nañ ko sax nañ ko nañ ko muñ waaw nañ ko ndax lolu ci xol lañ koy dindi tok muñ julli dafa war taxaw muñ moy ku gis mën ta dindi ci yoy yep nga mu daal di saxal mel non ndax yoonu bi la wax sallallahu alaihi wasallam ndax gis nga motax ñu ni deglu lu baax yoonu bi sallallahu alaihi wasallam wax na ko ndax neena euh bu fekkanteni da nga gis lo xamanteni du ñaaw la mu ni allahumma inna hadha munkarun fa azil bo nga ni yalla li la du ñaaw yalla ko dindi so waxe lol neena di nga am yoolu ku deglu lu baax ak ku teral lo xamanteni luy safaan kon mbokk yi ñun xeet lañu wax xam suñu borom daf ñoo tan ndax kuntum khayru ummatin lañ la wax jël li naas te amuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar dama leena a segg ci xeet yépp mbokk yi xeet yi fi jaar yi Isa jaar na fi Nuux jaar na fi ñom xeet yi fi jaar Muusa ñëpp ñu way suñu borom uxrijat la wax li nas dama leen tan xeetu yi sallallahu alayhi wasallam ngir lan te amuruna bil maaruf ngeen di diglu lu baax waaye wa tanhawna anil munkar fepp lu ngeen gis lu ñaaw ngeen teral kon mbokk yi buñu xolé suñu doom ñun julit tay nañu xool bu baax suñu njaboot lan la ñuy roy daanaka li ñuy roy lépp dara du loo xam te ne nii lu jëm ci wàllu baax la lu jëm ci loo xam ci wàllu diina la kon bu baax baax ñu bàyyi xel loolu noonu bu baax a baax baax mbokk yi waaye yow miy tere it sànq wax naa yi nga xam jikko yi mooy yi nga xam te ne nii kilifa yi war a tere nan lañ war a comporté woo waaye ci juróomi point mooy yow mi nga xam ne mbokk yi da ngay tere war ci sukkandiku bi si njëkk mooy ban mooy li ngay tere na doon loo xamante ne ni nga xam li ngay tere bu pare fo nga xam ko pare ndax li sharia lu ci wax lu ci atté sharia bu fekk xam nga ko pare nga do ko tere mel noonu bu ñaareel bi ci damay dëkk ndax waxtu euh, dafa xat moy lan li ngay tere euh, na nek nga jubli ci ñaareel point yi moy nga jubli ci jëmmi yalla subhanahu wa taala mo fi bu téré rek wala gis dara ngi di ci wax ngir lan ngir lu lay jox pour nga def ko sa poos dedet na suñu borom subhanahu wa taala itel la ci mbir mom non yalla rek nga xam ne di nga wër ak sa bàmmeel te di nga xam ne bis dina jëm ñu jël say jëf poser ko ci balance lii war naa tax mbokk yow muy tere nga war a bàyyi xel bu baax baax li ngay tere xam lu mu wax ci àddina ëllëg dina ko waxaat waaye ñetteelu point mooy lan li nga xamante ne ni da koy na nekk yow muy jël di wax na nga noyal say xam ki ngay woo bu baax a baax xam nit matul nga woyfal say moo tax euh, yonent ba sallallahu alayhi wa sallam imam ko wax ci buur duful ma def daane nabiyunal amiru naahi fala ahadun abarra fi xawli la minhu wala naam yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu al amin mooy ki njëkk a digle lu bax mooy moy ki xamanteni ni euh, lu bax moom da ko njëkk a digle moom moo ko digle sallallahu alayhi wasallam waye moko moo def waaw ndeysaan waye nga gi sallallahu alayhi wasallam sallam mo moo njëkk a teral safaan te mosu ko def kon ñu bayyi xel lool bu baaxa baax baax kenn nak du ko gëna a ci waxam di nga xamanteni ni def ni ci waaw wala mu ci déedéet sallallahu alayhi wasallam kon ñu war ko ro ci lool non mo tax yalla sallallahu alayhi wasallam sallam mos naa toog yi ndeysaan mu ne Omar ibn Xataab mu laaj ko ni ko Omar lo gëna bëgg ci aduna mu ni ko ñatt mu ni ko ban muniko ni gëna bëgg muniko amru bil ma'ruf wala kana sirran diglu lu bax donte lool sekkara digal nit ñi julli ñu sarax joxe asaka dimbalante donte lool sekkara muniko ni ko ak ban mu nafi andil munkar wala kana jëxan fu mu fekk lu ñaaw man omar danaa ko téré danaa ko xex ci lam lama lama lama ko donte loolu non dafa bir bu ñepp d'accord ci man man du ci d'accord d' ko ak ban mu xawlul haq wala kana fu fekk dina ko wax donte dafa wex xat donte dafa dal sama kaw jàngeen ci xat yonte sallallahu alayhi wasallam xulil xaq walaw kana muran akhulil haqq xaq walaw ala nafsika waxal deug donte deug dafa dal ci kaw kon mu melni yow mi wax donte deug gi dafa wul wëlbatiku dal sa kaw sax na nga d'accord xamni li ngay wax kat mom dafa dal sa kaw nga daal di koy nangu baax way juróomeelu point bi moy ban moy li ngay wax na doon wax xamanteni ni suñu borom subhanahu wa taala daf ko diglé te yow nga moytu bu baax baax ndax faxoñoon en sànq ci alcorane daal ni suñu borom wax na ni yeen ñi digle lu baax bu len fatte sen bopp dund naa ko ca départ mu mel nag léegi li xew mooy li ñu gis ci réew yi wala ñi nga xam te ne ñoom ñooy digle lu baax ñoom da nga gis koo xam day day tere tey gis ko mu nekk yi bu dee da ngay tere ak te ëllëg ñu gis la ca kanam fi nga xam te ne nii fa la ñuy ndagar wale ne ca kanam nga taxaw fa bu boobaa kon la ñoom ñooy nekkal ci wàllu diine ja ñooy nekk ci wàllu ndagar wale kon ñu war a bàyyi xel loolu bu baax a baax baax euh, point la yoo xam ni mooy digle lu baax tere safaan euh, lu yaatu la waxtu bi nag xam naa ñu may ñu mën a lu bare bare bare ñu mën nañu tënk li di ñaan yàlla yàlla mi nga xamante ni nii moom mën moom mooy dindee waa kon lu lépp lu safaan yàlla dind lépp lu ñaaw ndax bu leen fàttali mbokk yi ci tënk rek bu fekkente ni fexewuñu ba ñuy war a waxal lu baax war a xeexal islam dindil islam ay bon bonam suñu bañee ci loolu noonu yàlla dina noot ñi nga xam ñoo suñu noot jox leen kàttan te bu waa ñu duñ ci man dara te boobaa ñun ñi nga xam suñu suñu ñu baax dinañ ñaan yàlla te yàlla ko yàlla yàlla defar seen biir defar seen biir yàlla jéggal ñu jéggal leen yéen ñuy seetaan wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah waaleykum salaam wa rahmatullah euh, Cheikh Sidi Lamine ci thème bu am solo bi nga xam ni àndoon nga ko ak ñun ci durusu Ramadan euh, mu nekk loo xam ni leer na lool ci bopp yi te it nga génnee ko ci xam-xam boo xam ni xam-xam bu am solo la. Eh, ñu gis ni ci sa biir waxtaan génneel nga ñu ci eh, ay point yoo xam ne point yu am solo la te nit ñi war ko jàngataat war ko bàyyiwaat xel mooy nit ki di la muy tere mu nekk loo xam ne la mu téye la waaye gis nañu ci sa waxtaan ba tey nga xamal ñu ne nit ki la it la xam ne moo ngi koy tere ci làmmiñam te it loo xam ne mënees na ko dindi ci loxoom ba tey gis nañu ci sa waxtaan nga indil ñu it ñetteelu point bu am solo. mooy nit ki bu demee ba loolee yëpp mënu ko dindi te it mënu ko kii mu naqarlu ko ci xolam te muñ ko te it mu méngoo ak wax yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ni wax na ko ci xadis ni bu ngeen gisee dara loo xam ni eh, lu safaanu la na ngeen ko dindi ci seen loxo su ngeen ko mënul na ngeen ko dindi ci seen làmmiñ bu ngeen ko mënul na ngeen ko naqarlu ci seen xol gis nañu it ba tey ci sa waxtaan ngay indil ñu point bu solo it ci biir waxtaan bi nit ki li nga xam ne mi ngi koy tere mu nekk koo xam ne na ko xam ba noppi xam ci li ci àtte suñu borom te it amaana nit ñee ngi tere loo xam ni xamuñu ci li ci yàlla wax wala dañ ko tere ngir ni dañu ko bëgg tere nit ñi rek ñu tere ko waaye war na ci nit ki la muy tere mu xam dëgg-dëgg lii lan la ci suñu borom wax su noppee mu soog a tere loolu te yonent bi sallallahu wa sallam wax ñu ni wa iza nahaytukum an shay'in fantahu wa iza amartukum bi shay'in fa'tu ma shi'tum yonent bi sallallahu alayhi wa wax ñu ne bu ngeen dee tere dara na ngeen ko ba waaye bu ngeen digalee nit ñi dara na ngeen ko dikke seen kem kàttan ñu gis ne it indil nga ñu ci waxi borom bi subhanahu wa taala ci wax yu am solo yi nga xam ne wax na ko ci nit ki digle lu baax tey tere lu bon comme ni nga xam ne tijjee nga ko sa wax te nu tijjee woon ko suñu wax ñu lay ñaanal yàlla yàlla yokk sa xam-xam eh, te barkeel la eh, yàlla boole la ci mag ñi nga xam ni du yam ci fii rek waaye ëllëg nga di ko taxawee ci yeneen i jotaay eh, ñu di la ñaanal di ñaanal mboolem koo xam mi ngi ñu doon déglu di leen wax ngeen teg foofu seen loxo incha allah dinañu ànd ak yéen ci yeneen i xalqa asalaamaaleykum